prématuré ñu daal di koy jëloon daal di koy dugal ci machine à laver programmé machine à laver bi tàngaay bi toll ci quatre-vingt-dix mu def fanweeri simili ci ay waxtu ci biir ginnaaw bi la jëya ki nga xam ne mooy papay xale bi àdduna ci mbir mi ba noppi di ci indi ay sikki sàkka j'ai vu gis naa li nga xamante ne moo di yaramu xale bi ni mu yàqoo gis naa dagg-dagg yi parce que affaire yi dafa jaxasoo mu di estomac bi yaram bi lépp lañ dindi te man boo xoolee scientifiquement mënu ma wax ne lii sama doom la. rien ne prouve que c'est notre enfant. mu mel ni rek defoon nañ autopsie alxames bi ñu weesu waaye ci naqar ak tiis la papa ji di xamle ni kat autopsie bi wonewul benn résultat boo xam ni war nañ koo mën a gëm résultat autopsie yi nga xam ni moom lañ ñu man de jàppuma benn yoon ni résultat autopsie la jàpp rek dal di nettali la waaye résultat yi le wonewul benn yoon li nga xam ni moo xew wala sax li nga xam ni moo waral ñàkk ba kenn xale bi ci loolee ki nga xam ne mooy bàyyi xale bi nga xam ni dugaloon nañ ko ci machine à laver bi foofee ca hôpital Abass ndaw ñoo ngi sàkku ngir rek def benn test ADN j'attends plutôt. bu ñu kenn imposé maanaam benn labo bu ñu war a defee li nga xamante ne moo di test ADN bi ñun daal daañu choisir benn labo boo xamante ne daañu mën a def li nga xamante ne moo di maanaam test yi ba pare am résultat yi. sanctions sont appliquées. mu mel ni rek joxoon nañ benn plainte lii di hôpital Abass ndaw ngir rek képp koo xam ne laale nga ci mbir mi yoon dal di lay teg loxo maa ngi xaar ci justice Sénégal mu dal di def liggéeyam rek ba képp koo xam ne taxee nga ci mbir mi ñu dal di lay seppi dal di lay teg ci yoon ñun ci hôpital Abbas ndaw ak ak xale bi lan moo ko yóbbu ci machine à laver bi ba mu nekk ci yooyu condition yu metti ñun daal ñoo ngi xaar ay sanctions yoo xam ne képp ku laale ci mbir mi ñu dal di koy appliquer. Alfouni Jean François mi nga xam ne mooy baayu xale bi nee na du bàyyi benn yoon ndax kat fii ak semaine yi di ñëw bu ñu waxul lu leex ci li nga xam ne moo di deewu xale bi moom dina def li mu wax a def.